lépp lu nekk ci àdduna kenn umpalewul ni yàllaa ko moom waaye yàlla daa jël jàkka nag moomale ko boppam aj ko ci boppam yàlla ni dina dundal jàkkay yàlla yi innama yaamuru masajid allahi jàkkay yàlla yi kon jàkka bu ñu stigmatiser jenn jàkka naan jàkkay waa sàngam lan comme Sénégal nin koy defe loolu moom bu ñu koy def rek day am ñu ñuy xejji ak ñu ñuy xàjj day am ñoo xamante ni dañuy doon ay saa bu buñ duggee ci jàkka ji waaye buñ jàppee ni jàkka ji jàkka yàlla képp la ñun ñëpp ay jaami yàlla leen julli rek a ñu fa yóbbu li jàkka war a def ci pénc dina ko def ci mbooloo ma waaye tànk ñu ngi stigmatiser di xaj jàkka xejji bu boobaa jàkka ji du am lu mu def la mu war a def beneen bi yàlla ni jàkka yi yàlla leen moom bu leen fa jaamu keneen ku dul yàlla bu leen fa woo keneen ku dul yàlla beneen bi luy wane solos jàkk ci lislaam bokk dafa bokkoon ci priorité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy gàddaay jógee makkatal mukarrama jëm madinatul munawwara jàkka moo nekkoon yitteem ci yoon yi ba nim àgg masjidu Quba la njëkk a def euh, fondation tegu xeer jóge fa dem masjidul jumaa àgg madinatul munawwara njëkk muy tabax kër gi mu dëkk jàkka ja ñuy jullee la njëkk a tabax kon joxoon na jitte joxoon na yitte lool jàkka moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi jàkka mooy bërëb yi gën ci kaw suuf te moom la yàlla gën a soppi ci xadiis Abdullah ibn amar yàlla na ko yàlla gërëm nee na yonent bi moo wax ci lu mu jële ci boroomam ni yàlla dani bërëb yi gën ci kaw suuf mooy jàkka yi yëcca yées mooy Euh, jabaya mooy fa ñuy jaayee marché hadis boobu mu ngi ci euh, rawahu alxaakim ci mustadrakam beneen bi mooy tabax jàkka daa am ngëneel ki tabax jàkka wala ki ci participer wala ko joxe suuf sa ñoom ñépp mën nañoo bokk ca yool ba yonent bi moom moo wax Ousmane ibn Affan moo nettali ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ousmane na Affan yàlla ko yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu nee na ku tabax jàkka ngir yàlla yàlla dana la tabaxal kër ci àjjana kër ci àjjana kër ci àjjana loolu rek jaroon na pour wut suñu àjjana yi ëllëg fexe nu ñu tabaxe jàkka buñ sunu yeneen mbokki jullit gën a yeewu ci gën ñoo bëgg tuyaabu ñun suñu mbokk yi ko euh, financé yal na leen yàlla fay yal na yàlla nangu seeni jëf waaye jullit bu ne loolu daa war a nekk projet am projet boo xamante ni day nekk sadaqa jaariya ba yowmal qiyaam beneen bi mooy dox jëm ci jàkka dafa am ay ngëneel yonent bi sallallahu alayhi ku xëy mbaa nga gontu jëm ca jàkka ja saay boo xëyee walla nga gontu jëm ca jàkka ja yàlla waajal na la say bernde ci aljana yàlla waajal na la say bernde bernde yun waajal nit nag kon mooy kooku fan koy berndel am na fa wàccuwaay kon loolu tam jar na di dem jàkka beneen bi mbokk yi euh, jàkka dafa am ay rôle ci société bi yi jàkka ci société mën nañ koo tënk ci ñeenti domaine domaine bi jiitu mooy wàllu jàngale ñaareel bi wàllu yar ñetteel bi wàllu defar ay jikko ñeenteel bi wàllu social bu dee wàllu jàngale bu njëkkoon jàkka yi ñoo nekkoon jàngalekaay yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi ba ci jamono yi ko gën a jige ba ci suñuy réew sax jàkka yaa nekkoon sax ay université ay waroomi xam-xam yu mag di ci génne ci fànn yu bari ndëkk ci wàllu diine ak yeneen wàll ñooñu nekkoon ay ressources humaines yu am solo yuy defar seen société loolu ci wàllu jàkka la woon te njàng ma ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa yamul woon ci góor ñi képp waaye jigéen ñi dañoo mës a ñëw ci yonent bi sallallahu salaam wasallam ni ko góor ñi dafa mel ni nangu nañ ñu ci yow ñoo ñu ëpp ab cër ci yow ñoom de li nga leen jox ci waxtu joxoñu ko dañoo bëgg nga jox ñu bis ñu ciy ñëw nga ñuy jàngal yonent bi sallallahu alayhi jàppal leen bis ni leen ñu ciy ñëw ci bis booba di jàng bi ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi di leen ci waar di leen ci fàttali bokk na ca yem leen doon wax ni ku jiital ci yéen ñetti jigéen doom yu jigéen mu jiital ñu faatu yàlla dina la may aljana am ci ñoom ku ni ko bu dee ñaar ndëkk yonent bi sallallahu alayhi tam ni ko bu dee ñaar di ay doom kon loolu ci wàllu jàngale ci jàkka lool ci la bokk ñaareelam ci wàllu yar yonent bi sallallahu ci jàkka la daan yare di corriger ay erreur di jubbanti di oriente loolu tam rôle imam yi la jàkka ji warta nekk rek allahu akbar assalaamu aleykum ñu tëj ba waneen waxtu loolu da koo war a romb loolu tam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yent bi sallallahu alayhi wa ni mu daan corriger ci jàkka mooy bu ñu ay xissa yu bari am na ci solo mais mën nañoo doyloo xissab jeune bi ñëwoon ci yent bi sallallahu ni ko dama bëgg nga jox ma ndigal ci ma njaaloo yent bi sallallahu alayhi ni ko ndax bëgg nga koo def ak sa yaay mu ni ko déedéet ak sa doom mu ni ko déedéet ak sa sœur mu ni ko déedéet ak sa bàjjan mu ni ko déedéet ak sa tànta mu ni ko déedéet yont bi ni ko ñooñu ñëpp ndëkk ñoo koo ko bëgg a defal rek yaayi jàmbur la wala doomi jàmbur wala rakki jàmbur wala bàjjani jàmbur wala tàntay jàmbur boobu la waaje sibe def njaaloo yont bi sallallahu alayhi teg loxoom ci moom ñaanal ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa zanba wa tahhir qalba wa xassin farja yàlla yàlla nga mbokk mi yàlla nga ko jéggal ay bàkkaaram yàlla nga laabal ab kolam yàlla nga ñoŋal am payam ci mu sàmm ak yeneen ak yeneen i xisas yoo xamante ni yont bi noonu la daan yare di orienté ba nit ki bu bëggoon deful safaan da koy bàyyi bu sawarul woon ci lu baax da cay daal di am ak soññe beneen bi bu fekkee ci wàllu jikko ni jàkka di defere ay jikko mooy jàkka dafa war a orienté jaam yi ci wëlbati seeni jikko rafetal ko ndax ku takkoo di dem ci ab bërëb bërëb ba war naa am lu mu impact ci yow te jàkka rek mooy institution bu mel noonu dem fa amul benn problème jànge ci jàkka dafa wuuteeg jànge faneen fu dul jàkk li li ko gën a singulariser nag mooy li xadaasatil makaan mooy bërëb bi dafa sell bërëbu yàlla la yan ñamee def faneen duñ ko ñemee def ci jàkk beneen bi accès bi yomb na amuluk fay beneen bi jël temps ci jàng bu imaam bi mënta jàngale waxtu wii mën naa jàngale waneen waxtu beneen bi mën naa jàngal ñépp ci société bi moo xam fonctionnaire nga wala ouvrier nga góor nga wala jigéen la mag la wala ndaw la mën naa jàng si ci jàkk ji beneen bi mooy gratuité bi amul fay yooyu yépp jàkka mën na ko régler kon noonu la mën a régler waale itam ci koy ngir ñaari sabab sabab bu njëkk bi mooy li ñuy wut si ci jàkk ji daa war a defar ay jikko mooy julli yàllaa wax loolu inna salaata tanha an il fahshaai wal ñaareel bi mooy rëlu imaam imaam dam warta nekk imaam boo xamante ni allahu akbar salaamaaleykum joxe ñaan ñu dem déedéet lenn doo ko wax ci lu jëm ci jikko doo wax lenn ci actualité déedéet waaye imaam dafa war a nekk ku yewu ku xam li xew di di di mën a orienté di mën a jubbanti di mën a joyanti loolu bu fekkee imaam a ngi koy def dana am solo ñeenteel bi mooy social te looloo tax te loolu dafa bokk ci fonction ngi jàkka jàkka lie de culte mais milieu de socialisation la dañ fiy jaamu yàlla waaye tam li jëm ci sunu nekkin ak doxalin wa loolu jàkka daf koo war a gérer te da cee war a réussir war warta nekk jàkka ji ku am problème sax day xalaat nan lay àggee wax ko imaam du ko ñimee wax loolu du ci jàkka ji de ci imam bi la jàkka ji lii rek la ab bâtiment la lii moo gën a yomb mais ab liggéeyam bi des moo gën a jafe mooy social bi ak jàngale gi ak yar jikko yi loolu moom mooy li ëpp solo yonent bi sallallahu alayhi na fekk abu umaama ci jàkka ji ci waxtu wu dul julli mu ni ko la fi def waxtu mu ni ko xanaa ay problème rek ak i njàqare moo ma jàpp mu ne ko xaaral ma wax la ay baat boo xëyee dee ko wax boo gontee dee ko wax yàlla dina teggi lool dalal na xelam joxu ko lum yóbbu ci lu matériel jox koy koppar bu doon jamono ji mais lam ko jox ëpp solo ay koppar kon imam bi tam socialement war ngay nekk un régulateur un médiateur un facilitateur yooyu yépp dafa war a nekk ci yow ku la ñëw di la diis bu ko gaaw a jànn boo amul loo ko jox sax dalal la xelam mu dem kon yooyu ci roolu jàkka la barakallahu lana wa lakum fi alqurani alazim wa nafana wa iyakum bima fihi min alayat wa dhikri alhakim astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم قدوة الأئمة والمصلحين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان قد جرت في العالم في العالم الإسلامي عامة عادة افتتاح أو تجديد أو تجميل المساجد وفي إفريقيا خاصة فلنعلم بأنه إذا كانت النيات صادقة وقوية والقلوب والضمائر صافية ومخلصة والأعمال صالحة ومرضية عند الله وقامت المساجد برسالتها الأصيلة لقلت مشكلات المجتمع العويصة التي يعيشها أبناء المجتمع فليعد الأئمة والدعاة إلى الله المساجد إلى مكانتها الأولى حيث تخرج منها رجال علماء صالحون أتقياء كلهم موارد بشرية أكفى يخدمون مجتمعهم ويسعون في إرشاده وإصلاحه آخذين بعين الاعتبار أنهم هم المسؤولون الأول في هذه الأمانة فلنهتم بتزكية النفوس والقلوب وتربية الجوارح والعقول ولنركز أيها الأئمة عامة في دور المسجد التربوي والتعليمي خاصة وخصوصا في دوره الاجتماعي لأن المسجد مؤسسة تعليمية وتربوية واجتماعية كما تمثل ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننتهز الفرص قبل فوات الأوان مدركين بأن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل منتبهين بأن السفر طويل والحمل ثقيل والزاد قليل wa tariqu wairun wa muxiif wa rabbu basir wa qul icmalu fa sa yara allahu camalakum wa rasuluhu walmuminuuna walmuminuuna wa sa turadduuna ila caalimi alxaybi walchahaada fa yunabbiukum bima kuntum tacmaluun mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni de siiw na lool ci monde l'islam ubbi wala rafetal wala yeesal ay jàkka rawatina ci Afrique waaye nan xam ni bu yéene yi sellee te dëggu xol yeeg conscience yi set wecc ca jëf ji nekk jëf ju rafet ju yàlla gërëm jàkka yi taxaw ci seeni rôle ña jàkka yi da ko joxe kon de bu boobaa dana néew lool problème yu metti yi nga xamante ni société bi ñu ngi koy jànkuwanteel mi ak wootekat yi nañu delloo jàkka palaasam bu njëkk mooy palaas ba jàkk amoon ca jamono yi yonent bi sallallahu alayhi ak saxaabaam ya mu yaroon ca jàkka yooyu nga xamante ni daanañ ca génn ay jàmbaar ay boroomi xam-xam ay nit ñu baax ñu ragal yàlla ñoom ñépp amoon ay compétence di jariñ seeni société di dox ci lu koy orienté ak lu koy jagal jàppoon ndëg ñoom ñooñu daan génn ci jàkk yooyu dañoo considéré woon seen bopp ni ñoom ñooy responsable yi jiitu ñooy responsable yi jiitu ci seen réew ñooy responsable yi nga xamante ni lu fi xew waruñoo toog di seetaan wala di noppi waaye am na luñ ca man am na lu leen ca war kon imaam yi nañu gën a insister ci yar ndaw ñi ñu màggaale ak xam-xamub diine ak yarub diine ak xam social parce que kat yooyu itam bu manqué nit ñi bu ñuy am ay compétence te duñ am éthique ak morale luñ leen dénk liy xew rek ay xew waaye ku ñàkki compétence sax sa éthique ak sa moral baax lu la dénk du sànq te loo ne doo ca yàq boo ca defarul doo ca yàq kon loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu da jëmm woon na ci jàkkay yonte bi sallallahu alayhi wa beneen bi nañ profité ci occasion ak opportunité bi ñu yàlla jox ñun imaam yi ku dul imaam amoo loolu ci auditorat booy am chaque semaine ci ñu lay déglu ñoo xamante ni woowoo leen ni leen kaa leen déglu ma booy wax waxoo ci kenn noppil damay wax ñoom ñéppay toog ci suuf yow rek nga toog ci kaw ñoom ñéppay féete ci ginnaaw yow rek nga ne ci kanam loolu imam rekk ko am nañ ci profité bala occasion yooyu du jeex lu nit nekk nit a ko nekkoon boo nekkee imam tey boo ëllëgee doo nekk imaam di nga feebar mbaa nga faatu mbaa nga tukki loo waroon mën a def te defoo ko ca ba nga ca nekkee looloo ñàkk nga ko occasion boobu perte nga kon nañu jox nit ñi li ñu soxla aajowoo ko di jaxasoog penc mi tam nekk ay senegale nekk ay jullit xam lii penc mi laaj loola ñu ne ca jaxasoog ñoom te bañ a mu daaraa ak ñoom waaye tey mu mu jaama la bu rafet te bu kenn dévier say pas-pas ak say principe loolu boo ko defee nit ñi dinañ la respecter di nga leen jariñ te di nga jariñu ci ñoom ndax ci ñoom ngay amee tuyaabo ndax danga ngaa taxawee taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom ci pénc mi te ñoom loolu la ñuy xaar ci yow yow imaam xaaruñu ci yow leneen lu ëpp loolu te ñu xam ni ah tey bisub jëf la tant que ñu ngi dund dañoo war a jëf go